kon jarul nga jooy astu jëfam rek euh, jar na ñàkkaa jooy xëy na xale la 19 ans rek la am waaye dafa doon liggéey te mission la doon mission boobu nag eh, fii la ko yàlla yemale dañuy nangu dagul yàlla te duñ ko mas a jooy duñ ko mas jooy e bëggoon na yàlla lool bëggoon na yonent bi lool bëggoon na Cheikh Tidiane lool bëgg na sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim lii moom ñun ñi ko xam nañ ko ci moom sëriñam bi nga xam ne moo ko tarbiyee Ibrahima dafa mos a wax ni ma yàlla dimbali na la doom ji ma la may bëgg lu dul yàlla kon yow noppalu kon loolu doy na sant yàlla moo tax bi mu dogee moom laa njëkk woo woo oustaz mi jiite ndar teg si aydi mi nga xam ne mooy soppeem mu yaayam moo woo leen ñu leen ah yéen a bëgg waaye yàlla na ko gën a bëgg jël na ko kon mbooloo mi fi nekk yëpp rek dañ ko ñaanal yàlla ñaan kese lañ ko dese lañ ñaan yàlla waaye waatal naa leen ni asu duma ko mas a jooy la ma waxoon démb rek yonent dem na ñu jooy jooy nu ngir demam Cheikh Tidiane dem na ñu jooy jooy nu ngir demam Mawlana Cheikh Ibrahim dem na jooy nu ngir demam lenn rek la ñuy jooy suñu waxtu bu ma demee ba jooy asu rek xëy na wéet wala fu mu féete woon wala ni ma doon taxawoo loolu tax ma koy jooy waaye du ma koy jooy ngir dem na déedéet asu njëkkul dem ci man am na ñu ko jiitu dem ci man kon bu asu ñëwaatee ci man bu wujjee tourné waat dina si waat dinañ nangu dogal yàlla te nag duñ dina gëm yàlla pare def loo ne bokkut ak yàlla yàlla leen gëm tey yàlla leen gëm suba yàlla leen wóolu te yàlla leen mbiram yëpp lu mu dogal rek nangu nañu lu mu dogal rek nangu nañu biñ ko tiimee xam nañ mi ngi waaj keroog doon gën ànd ak sago bi mu demee te leen gën ànd ak sago biñ koy defar si leen gën ànd ak sago ba tey rek yàlla nu may sago waaye sago bi nag du sama njàmbaar ndimbala yàlla la yàlla moom ma dimbale ba mu mën toog fii dékku lii yëpp yëpp waaye ku ne xam nañ doom res la doom res la te res bu daggee si nit dara desatu fa te moom laa njëkk gis si doom yoo xam ne moom laa tax sama dëgg kon bu yàlla defee lii dañuy sant mm. dañuy sant sant bi nag dañuy sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima moom mi nga xam ne moo rey suñu xol yi ci yàlla ginnaaw mënu waxoon ni dee leen déegu njëkk balaa dee di ñëw kon dee nañu ci dee kon bu dee ñëwee kon du saf dinu metti nag mais du saf te du metti boo xam ne sax dañuy saalit lu war a am la rek te ku ne xam ne ni buul bi day tourné te gan la goo xam ne du romb benn kër yàlla na yéex rek ci kër gu ne yàlla na fa yéex te yàlla na ko yéex a fayante di ja wax mbokk yi ñëw yëpp ñi nekk bitim réew ak ñu nekk fii Sénégal ak sëriñam yi ñëw ak waa Kër Baye ñëpp woote Baba woote na Macky woote na suñu maamu ñes woote na Baye Mar woote na kër xalifa bi léegi lañ coupé kenn kenn kenn desul kon xalifa bi léegi lay woote ni nan jox téléphone bi waa kër gi ñu wax ni mi ngi jox ko jottali ñaar loolu rek doy na sant bokk ci kër ñu xàmmee la ba nga am naqar ñëpp yëg ni yow am nga naqar loolu doy na ku mu doytul dara dootu la doy kilifa yii jóg te yàlla tax ñëw si jataay bi te yàlla tax caaxaan indiwu fi xëy na dafa am lu ñu gis ci asu wala am lu yaakaar ci moom ak gis melokaanam moo tax ñoom ñëpp topp guddi gi ñi topp fajar gi ñëw pour gunge ko ci ba kër këru dëggam la ma waxoon rek yàlla rek la bëgg suy togg naa ne sa togg bi dana yéex a ñor ndax da ngay tool di sikkar rek sikkar di sikkar di togg di def nag sikkar togg bi dana yéex a ñor su ko defee mënuma lii laa am waaye nag li mu am doy na sant yàlla ndax doy na sant yàlla asu sama doom de jur laa am mais yéen jur adduna bi yëpp a amul ku ma wowul amul ku ma wowul ñi ñëw ñi ñàkk ñëw ak ñëpp wonan ma kon loolu rek sant kon ñu ngi nuyu ñëpp di doole ñëpp njaal képp koo xam ne yaa ngi ci yoon yeewi nan la képp koo xam ne rek ñëwoon nga te yaa ci yoon yeewi nan la teewuñu kenn eh, ngantuluñ kenn ku am nganti jéggal nan la te nangu nañu yàlla ñëpp yàlla na yàlla fay ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ah seen sago nag mooy ngeen ñëwul fi beneen bi waaye fàttaliku leen ci ginnaaw ñëw ngeen fi ay bis yu dàq ci biir waaye jalal ak jamal nii la su jalal bi ñëwee dañu nangu fas la dañ koy war dama siy toog ba mu neex dama siy toog ba mu neex nag dawal ko bu fu mu yem rek mu neex di jalal bi ñëwee dama si daan toog ñëpp naan la jëf kontaan nañu neex na waaye nag looloo fi am muñal ak félicitation ñoo ànd muñal ak félicitation ñoo ànd ak sigil ndigaale ak félicitation ànd bu njëkk danaan ñëw naan félicitation te dañ ñëw ni sigil ndigaale ah comme ñu nangu ñu ba Ndar sori na ñi jóge feneen ak feneen sori na waaye lii ngeen mën seen mbokk jullit gunge ko ba këru dëggam sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ñaan naa yàlla ñëpp di wax rek ngeen kon di ko ñaan yàlla mission la woon mottali na ko mission bi mat na dafay dem noppalu ji loolu rek la kon ñu ngi nii ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa